الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله نحمد الله الذي خلق العباد والبلاد وجعل التفاضل بين خلقه امرا صاعدا فكما فضل بعض عباده على بعض فضل بعض الامكنه على بعض فجعل مكه اشرف البقاع وافضلها وخير البلاد واكرمها إليها تهفو القلوب وفيها ترتاه النفوس وعندها يحط الخائفون رحالهم mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi sant yàlla yàlla moomu nga xam ne moo bind jaam ñi ak gox yi ak réew yi moom yàlla moomu bind réew yi ak jaam ñi moo def ngëneel moo def gënalante diggante jaam ñi léeg-léeg mu gënal ay nit ci kaw ay nit léeg-léeg mu gënal ay gox ci kawi gox léeg-léeg mu gënal ay bis ci kaw yi bis léeg-léeg mu gënal ay guddi ci kaw guddi léeg-léeg mu gënal mbindeef ci kaw mbindeef yi moom yàlla moomu jalla jalaaluhu moo gënal màkka ci kaw mbooleem gox yi mu def ko muy pàkk boo xam ne moo gën ci pàkk yi gox goo xam ne moo gën ci gox yi xolu jullit boo ubbi la la fay fekk mooy bëgg a dem màkk su demee ba ñëwaat soo xootee soo xoolaatee xol bi nga fekk mu bëgg a delluwaat ku fa dem rek dugg ci kaaba gi rek daal di fiix ak coono boo mun a am ku tiit boo fa duggee nekk ci sécurité ñi jaamu yàlla fa la ñuy jublu di jàmbat seeni aajo seeni boroom seen boroom jalla jalaaluhu ñu koy ñaan mu leen di fajal seeni aajo mu nekk barabu jaamu yàlla ak bu nuy delloo ci yàlla tabaraka wa taala ñu koy ñaani seeni aajo mu koy faj mu nekk njëlbeenub néeg bu ñu teg ci kaw suuf pour jaamu yàlla mbokki jullit yi su fekkee lii mooy màkk kon ndax dina jaadu ci ñun ñu koy tëkkaleeg feneen ndax dana jaadooti ci ñun boo waxee rek ñu ne màkka màkka màkka rek yéen màkka rek waaw bu nu waxul màkka lu nuy wax sunu waxul màkka fan la nuy wax fan muqaddima bi boroom xam-xam yi def ci màkk ci ban réew ngeen ko gis ban dëkk ngay ubbi xolu jullit yi fekk ko fa budul màkk waxuma jullitu benn kër rek de waxuma jullitu benn gox àddina bi yëpp laa wax yan xol ngay ubbi loo fay fekk màkk mu nekk place pàkk bu yàlla gënal ci lépp sunu borom subhanahu wa taala moom yàlla sax moo ko wax ci quran mu ne inna awwala baytin wudi'a linnaas lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayinat maqama ibrahim wa man daxalahu kana amina sunu borom nee na néeg bi nu njëkk a teg ci kaw suuf def ko pour néeg bu ñuy jaamu yàlla mooy makka mu ne néeg la boo xam ne mubaarak dafa am barke waaye wa hudan lil alamin néeg la buy jubal mbindeef yi bu yàlla ne woon néeg boobu dafa am barke rek kon doyoon na waaye mu ne day jubalaate mu ne fii ayatum bayinaat ay kéemtaan ay aaya yu ne fang yu nit di teg bët di ko laal ak loxo di ko noyyi mu koy xeeñ ndax jàkkaarloo moom jëxrën benn maqaama Ibrahim yàlla ne subhanahu ku dugg ci gox boobu rek place boobu pàkk boobu am nga sécurité kon su yàlla waxee lii ci kaw màkka ana beneen dëkk bu ngeen gis bu yàlla wax ci alquran bu toll ak màkka comme nii kon foog nu delloo si xel yi xam ne seytaane moo nuy pak moo nuy fakkatal pour li yàlla màggal bañ a màgg ci yow li yonent bi màggal bañ a màgg ci yow ba loolu tax buñ la nee màkk nga naan waa màkk léeg-léeg nga wax ak ay nit ñu ne yéen da ngeen a xeeb seen bopp màkk ay nit a fa ne ñun ay nit lën màkk ay barab yu sell la fa nekk fii ci Sénégal am na ñu sell am na barab yu sell nangu nañ de banunu loolu waaye dañu ne màkk moo gën ci dëkk yi danu ne ka tëdd màkk moo gën ci nit ñi néeg ba nekk màkk moo gën ci néeg yi suuf sa nekk màkk moo gën ci kaw suuf si ñun loolu lan wax waaye waxuñu feneen baaxul danu ne fee moo gën a baax bu fekkee jar na ngay tiitaru ab jullit ngay tiitaru di rëy rëylu fee doy na la ku fee doyul nag dara dootu la doy ndax fee moo doy yàlla subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala mu ne baytun néeg la boo xam ne yusaabu nnaasu ilayhi wa yarji'uun fa yajiduuna fihi raaha wal amn wa lazzatu libaadi lilmawla subhanahu wa taala wa hum bi zalika yatadakkaruun al ambiya wa yaqtaduuna bihim néeg boobu ku fa jaamu yàlla dan lay fay tiyaaba yi dañ koy doublé feneen nag foo julli tiyaaba yi ngay am géejawaay ngay am foofu tiyaaba yi ngay am Dakar ngay am foofu feneen foo julli laa fudul mag ak gox yi yonent bi wax li ngay am géejawaay gi doo nga fay am bu la neexee nga dugg avion bu la neexee nga dugg lu la neex waaye benn dong la moo géejawaay gi yem booy boo nga noppalu amma màkka nag tiyaaba yi dañ koy doublé foofu la nit ñi dem di delluwaat foofu la jaamu yàlla di neexee foofu la sa xel di demee ci yonent yi alayhimu salaam ndax yonent yi fa la nu jaar nga mën leen a roy borom bi ne wa id jaalna albayta mathabatan linnas wa amna wattaxadu min maqaami ibrahima musalla borom bi nee na yow yonent yàlla muhammad fàttalikul keroog ba may def néeg bi mu nekk dellukaay pour nit ñi marja linnas ku dem rek da ngay bëgg a delluwaat ku demul bëgg a dem waaye nan jàpp ba barabab ibrahima alayhi salaam mu nekk place pàkk bu ñuy jullee ixwaan yi makka dëkk la boo xam ne al baladul amin alladi yaatihi alxayr wa rizq min kulli makaan suñ demee màkk doo fa gis suuf boo demee màkk doo fa gis suuf waaye fu mbay ñore ci àdduna bi ñoom ñooy njëkk a lekk balaa kenn lekk te doo fa gis suuf bu ñuy bay waaye lépp ñoom ñooy njëkk a lekk ba desal nun nu doog a lekk lu tax parce que yàlla moo barkeel dëkk ba lépp fa lay jëkki yu saaqu ilayhi dañ koy wommat indi ko ba foofu soo fa ñaanee yàlla nangu ko fa ngay fekk ñaanu yonent yàlla ibrahim bu mu ñaanoon sunu borom subhanahu wa taala nettali ñu ko ci alquran wa id qaala ibrahima rabbi jaal hada baladan aminan warzuq ahlahu min althamarat man amana minhum billahi walyawmi alakhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بقرة 126 suñ borom ne fàttaliku leen keroog ba Ibrahima ba Ibrahima taxawee di ñaan ci dëkk bi mbokk yi xool leen ku toll na Ibrahim tàllal ay loxoom ñaan yàlla ne ko dëkk bi barkeel ko ndax am na beneen dëkk bu benn kenn ñaan ku toll na Ibrahim pour yàlla barkeel ko kon bu nu seytaane këf bu nu ñu jàngul këf di nu yóbbu di nu réeral bu nu noo xam ne seeni intérêt rek moo tax ñu bëgg laa dëppuloo fi la yàlla xoolloo fi la yàlla jëmloo léeg-léeg nga dégg nit di aji màkka ñëw tàggu kilifaam mu ne ko adan yaha kono saa yehi hoto ƴettu toon hay hunde hay dara ala toon ko wonno toon ko foof nan ga léeg-léeg ngay tàggu sa kilifa ne ko maa ngi aji mu ne boo demee bu fa jëlee dara fii lépp a ngi fi bu fa xool dara bu fa jëlee dara ku dem ba màkk jëlee woo fa dara fii doo fi indi dara ndax fii dara amu fi su fekkoon ne dara amul foofu suñuy julli fan la ñuy jublu loolu rek doy na ne dara nga fa bu nu paree julli léegi xutba nan jubli ni nan jublu sow ñu xool wala nan jublu ndeyjoor wala nan jublu càmmoñ ñu xool ndax julli nanu kon bu nu ay nit tourné mbir ya fa la nekk nekkul fii fële la nekk fa yàlla wax wa min fida fadaili makka haytu sabata an nabi sal allahu alayhi wa sallam annahu qaal salatun fi masjidi hada afdal min alf salaa keroog ba yonent bi di wax lii mu ngi ci madinatul munawar toog ndeysaan wéeru ca min baram ba naan sama jàkka ji julli fi moo gën julli fépp fépp foo julli ñaari rakk ci sama jàkka ji it nangu na ko tolloog naag junni rakk mu ne ba mu des masjidil haram ba mu des makk ah ñu ne ko foofu mu ne miatu alfu salaam téeméeri junni ñaari rakk pour nga julli fii ñaari rakk pour nga tolloog ñële foog nga julli fii téeméeri junni rakk pour nga tolloog ku julli ñaari rakk mag loolu danañ ko tëkkale. foo xam ne ñaari rakk rek mu nekk téeméeri junni rakk fii ñu bëgg a wax nit ñi foofu dara nekk ñu bëgg a wax nit ñi ñooñu lu tax ngeen di woor ngeen ngeen ñuy woor ngeen di woor. ñuy julli ngeen di julli yéen bu ñu waxee rek ngeen ne màkka màkka màkka waaye daneen ne màkka ba deewaay ndax yàlla moo nu ko waxloo yàlla moo nu ko waxloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wa min fadailiha bokk na ci xéewal yi fa yàlla def ngëneel yi an allaha ixtaaraha li mawlidi nabiyihi alxaatam bokk yonent bi fan la juddoo géejawaay Fass Mbaaw Tiwaawoon Pël ah yonent bi màkk la juddoo kon rek loolu rek doy na muy ngëneel fa yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam nga dem aji ñu ne la kër gi fii la yonent bi juddoo ndax loolu xéewal gën na ko rëy waaw su fekkee benn waay mooy juddu fii ci Sénégal rek nit ñi di bëgg a dee c'est parce que waa jooju fii la juddoo bu bis bi ñëwee ñuy bëgg a rey seen bopp ñu ne yonent bi màkk la juddoo ñu ne foofu dara nekk yemu ci loolu waaye yàlla màkk la ko yónnee ci xeer wu ñuy wax jabalu nuur yemu ci loolu alquran foofu la wàcc nga taxaw seen montagne bi ñu ne la mu ngi ne fële la jibril fekk yonent yàlla muhammad fu jibril wàcc ñu ne foofu dara nekk fu jibril wàcc Sénégal nag foo tourné moom ay photo jibril la ngi fi foo tourné ay photo jibril la ngi fi waaye jibril est-ce que mës na ñëw Sénégal mbokk yi su fekkee mës na ñëw ana aaya bu ne ñëw na ana hadis bu yonente bi ne jibril ñëw na Sénégal amma Makka yéen ñëpp da ngeen a jàng yonente bi nekk ci xaaru Hira jibril ñëw dugg ne ko iqra loolu sax dafa tuuti da ngay dem Medine ñu ne la haza baabu jibril Medinatu Munawwar ngay dem jàkk yonent bi ñu ne la fii mooy buntu jibril yonent bi fi la doon toog jibril dugge buntu bi yor melokaanu sahaaba bu tudd dihiyatul kalbi su duggee ñëpp yaakaar ne dihiya la fekk jibril la su waxee ak yonent bi ba dem yonent bi ne xam ngeen ki toogoon fii gars yi ne ah yàllaa ko yonent moo ko xam mu ne jibril moo ñëwoon di leen jàngal seen diine ñu ne foofu dara nekk foofu kon fan la dara nekk kon fan lan war a tiitaroo kon fan moo war a nekk suñu xol yemul ci ne fa la juddoo yemul ci fa la ko yàlla yónnee yemul ci fa la alquran wàcc waaye fa la daawal islaami tasaaroo ba yegg si fii ci Sénégal fa la mbir mi tàmbalee di waaw yéen balaa mbir mi ñëw fii nekk sebet ngeen jot ci sebet bi def ci suukar di naan naan ñun ñoo naan sow piir bi nan seetaat suñu bopp xam ne fu nu yàlla xool loo lan war a xool lu yàlla réel suñu bët moo war a rëy lu yonent bi wan jàpp loo loo lan war a jàpp amma di concurrence di tiitaroo di tëkkale di tëkkale jumaay Médine lañ taxaw ak benn waaye mu ne pourtant sunu jumaa ja de mu ngi niroog jumaa ji ñu ne ko ragalal yàlla bul ko tëkkale jumaa ji amul jumaa ju mu tollool ci kaw suuf waaw xam na dañu ëpp xaalis rek kon nu tabax jumaa ju mel noonu même bu nu amoon xaalis daf jumaa ji or boo fa jullee ñaar raaka ñaar raaka kese la boo ko raayee araam na soo ko fóonee araam na màkka nag mooy benn place buñ la sant nga foon xajaratul aswad Omar ibnul Xataab ñëw na ba ci xeer bi ndeysaan raay ko muy xeer bu ñuul mu ne ko alimtu annaka hajar la tadur wala tanfa law lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat wallahi xeer nga rek doo jëriñe doo lore su ma gisuloon yenentu di la foon duma la foon daa di foon xeer bi mbokk yi xeer boobu fu mu jóge aljanna yéen waa Sénégal da ngeen am xeer bu jóge aljanna xeer nag bëri na fi de foo dugg di nga gisi xeer waaw ndax nag xeer bu jóge aljanna lan wax xeer boo xam ne yonent bi teg na ci loxoom Aboubacar teg na ci loxo Umar teg na ci loxo Ousmane teg na ci loxo Ali teg na ci loxo waxuma sax al anbiya alayhim salaam waxuma loolu waxuma ñoom Ibrahima ak ñoom Ismail yonent laa tàmbalee wàcc am na fii kon buñ sonal suñu bopp bu ñu concurrence nañu gëm suñu diine suñu diine fee la am fee la màggal nan ko màggal ndax fee la nu yàlla màggal loo إخوة الإيمان وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها سورة الشعراء آية 7 borom bi nee na aha naka noonu laa wax yoo ci yow alquran laa wàccee ci yow ca Makka alquran boo xam ne arab la lu tax li tunzira umma alqura pour ñu waar ndeyu dëkk bi mooy ban dëkk mooy Makka wa man hawlaha ak li ko wër Sénégal doog a ñëw ummal qura wa man hawlaha wa annahu yumna'u al-kafir dukhula Makka mbokk yéeféer du fa dugg wa dafnuhu fiha aydan kenn du ko fa suul ban dëkk ngeen gis fii ci àddina bi ban dëkk ngeen gis fii ci goxi Sénégal bu yéeféer duggul tegul tànkam Makka yéeféer du fa dugg kenn du ko fa suul mani fan fii ci Sénégal ngeen gis fu ñu suulul yéeféer wa annahu yuhramu hamlu silah fiha illa li darura makka kenn du fa yor ngànnaay loolu tax yenn saa yi bu gars yi di la tooñ bi ne la da ngaa mel ne police makka parce que police makka du yor ngànnaay parce que makka kenn du fa yor ngànnaay moo tax police yi du ñu ngànnaayu parce que kenn du fa ngànnaayu ah fii nag apprenti yi sax dañuy ngànnaayu waxuma la ak police yi mbokk julit yi nanu xam ne ëllëg yowm alqiyama wa annahu yubaas min maqbaratiha sabiina alf yadxuluna aljanna bi gayri xisaab loolu am nan ko yowm alqiyama ëllëg bu nuy dékki yàlla dana dekkil ci bàmmeeli mag juróom ñaar fukki junni alf ñoom ñëpp dañuy dugg àjjana direct kenn du leen atte loolu am na sunu armeel yi ëllëg yowm alqiyama danañ génn ci bàmmeel yi sabuuna alf yadxuluna aljanna bi gayri xisaab ñooñu danañ dugg àjjana kenn du leen at yusfa kullu wahidin minhum fi sabiina alf ñooñu sax kenn ci ñoom balaa muy dugg dana ramm ci xeet wi juróom-ñaar fukki junni ñooñu ñuy ramm wujuhuhum kal qamari laylatul badr seen jëyaa ngi leer naññ mel ne jant bis badr bu am 15 jours est-ce que loolu am na fii ixwaan yi nan delloo si waat xel yi amaat sunu pas-pas léeg-léeg ñenn gaa ñi dañu ne bu ñu bëggee doyandil dara bu ñu bëggee weddiloo nit ñi dara dañu koy tuutil kenn dootu ko jox daraja kenn dootu ko jox dëgg su ko defee nit ñi di ko bàyyi di ko bàyyi loolu ngay dégg léegi ni comme aj jot na nga dégg ñu ne ah màkka de jarut sa dem man de bu ma naree dem màkka ma dem fii demal fu la neex waaye doo fa jëlee dara fee nag ku fa dem booy ñëw da nga fay jëlee dara da nga fay fekk dara jëlee fa dara yooyu ay pas-pas la yoo xam ne jaru sax diglu fala mbir mi nekk fan nu yàlla xooloo mbokk yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله وأن من حول الكعبة قبر ثلاثمائة نبي وما بين ركن اليماني والحجر الأسود قبر سبعين نبيا وقبر إسماعيل وأمه هاجر في الحجر تحت الميزاب وأن ما بين الزمزم ومق والمقام قبر نوح وحود وشعيب وصالح bokk jullit yi biir xaramul makka ci biir xaram bi est ce que xam ngeen ne suul nañ fa ñetti téeméeri yonant diggante ruknul yamaani ak hajaratul aswad kaaba gi ñeenti koñ bi koñu ndeyjoor bi ñuy wax ruknul yamaani nga xam ne foofu dong la ñu laalloo nit ci kaaba gi hajaratul aswad la ñu foonloo nit xeer wi mbokk yi diggante boobu juróom ñaar fukki yonent lañ fa suul mbokk yi xabru ismail mi ngi ci xaram bi yaayam xaajara foofu lañ ko suul ci misaab taxtal misaab ci suuf kaaba bi mbokk yi diggante zamzam maa bayna zamzam wa maqaam diggante maqaama ibrahim ak zamzam yi fi ngay naani jee foofu la qabru nuux nekk foofu lañ suul huud soayib saalax loolu am nañ ko loolu ngi Sénégal ah xool leen tiyaaba yu rëy yi xoola ñuy tëdd foofu te tey lu yéeme mooy boo demee doo gis dërëm doo gis parce que mbiri yàlla jalla jalaaluhu وقد أوجب الله على المستطيع من الناس الاتيان إليها من كل كا من كل مكان ودخولها بتواضع وتخشع sunu borom moo santaane fu nit mën a jóge ci adduna bi na dem màkk bu ko mënee waaye dem goo xam ne ngëm moo la yóbbu dem goo xam ne tawaadu toroxlu dem boo xam ne suufe suufelu dem goo xam ne boo fay dugg sa première fois ngay armal da ngay simmeeku ci yére àdduna sa bopp sax doo ko muur waxuma laak nag sol tubéy ki fay dugg premier jour am ci lépp lay wammeeku ci àdduna yére nit ñi sax da nga koy bàyyi def bopp neen ngir màggal sunu borom subhanahu wa taala borom bi ne walillahi ala nnas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin borom bi ne sant naa leen ngeen ajal ma baatu aj léeg-léeg nga dégg fii ci sunu journal yi su popa ngeen xewlee ñu ne pèlerinage su géejawaay xewle ñu ne pèlerinage su ñuy dem sali ñu ne pèlerinage bu ñuy waaw kon lan mooy pèlerinage alaysa bil hajj aj fan lañ koy defee bu ñuy dem géejawaay ñu ne aj bu ñuy dem Pikine aj bu ñuy dem caaroy aj bu ñuy dem màkk aj aj fenn dong lañ koy defee feneen foo dem yaa fa yóbbu sa bopp mais aj yóbbu la fa aj fenn kese la mooy màkkatal mukarram dafa am heure buñ koy def am ay waxtoom am ay bisam am nun koy defee am fuñ koy defee feneen foo dem ajiwoo ngay sonal sa bopp ñi gën a doy waar na gën a rus léeg-léeg nga gis ku dem ñëwaat gaa yi naan la ziar nan la mbaa ñaanal nga nu allahu akbar mel ne daloo demoon fu màgg seytaan moo ñuy def yooyu pour lan fii yàlla wax nan dem dootu réy ci ñun fu la neex nga dem tollale kook foofu fa la mbir yi nekk bu nu sonal suñu bopp bu yeboo ñu wax lu lu neex maar di passé la benn waay toog fi naan nu yéen di ngeen xeeb da ngeen xeeb Sénégal ñun ay nit lañ comme ñoom ñun waxuñu dun ay nit danu ne amaakinul muqaddasa yëpp yàlla foofu la ko def ndox moomu moo gën sunu ndox wala jàkka jaa gën sunu jàkk suuf saa gën sunu suuf loolu moo li am parce que yàlla moo ko def même ci nit ñi tilka rusul faddal naa baaduhum ala baad même yonent yi yàlla da leen a gënalanti xam ngeen ne Ibrahim ak Yusuf tolloowuñ xam ngeen ne Moussa ak Saalax tolloowuñ Moussa yàlla dafa wax ak moom Ibrahima wattaxaza allahu Ibrahima xalila wa kallama allahu Moussa taklima ah Isa nekk Masih Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk alhabib soppe yàlla bi loolu yàlla moo ko def mbokk yi makka bokk na ci xéewal yi ko yàlla def dajjaal du fa dugg yonent bi nee na amul benn kër ci kaw suuf benn pakk dëkk lu dul dajjaal dina fa teg tànkam ba mu des makka ak Medine ay malaaka ñoo koy garde axiru zaman dajjaal du fa dugg loolu leer na kon kay mbir mi mbokk yi fala ndax yàllaa ko wax kenn du fa tuur deret kenn du fa jaamu xërëm ndax yàlla moo ko setal keroog ba yonent bi duggee ci kaaba gi yor kaanam bi jaakaarloo xërëm yi naan leen qul jaa al haq wa zahaqa al batil keroog la màkka set bu fii nu taxaw kenn du fa bokkaale yàlla boo ko bëggee raay mi sax ñu ne la xaraam looloo tax yenn saa yi nga dégg ñi ñi jàngul bu njëkk bi dem naar yi dañoo soxor loolaal ñu ne la xaraam xaraam ah parce que dafa xaraam parce que miir kenn du ko raay parce que sajaada kenn du ko raay ñun fii dañoo tàmm di raay bay raay kurus da ngay gis ku julli ba pare jël kurusam ñaan ba pare tublu ci koros kurus gi boxoñ diw ci kanam gi ñaan di diw ci kanam sax du diin du sunna waxuma laag nag jël kurus di di di ko box boxoñ ci kurus kon ay mbir la yoo xam ne xeer kenn du ko raay ay karo kenn du leen raay wallahi alazim benn ay nit laa àndal yóbbu leen ba kër gi yonent bi judd ñu ñëw ñuy raay naar bi ne ma waxal ak ñii ma ne ko eh kii nee na lii kenn du ko raay te waxoon naa leen ko bi ñuy ñëw mu ne leen li haasa ciment lii ciment la comme ciment bi ngeen bàyyi seen dëkk maa fii naf wala dor lii du jëriñ du lore hajar la tadur wala tanfa ñu ne lu mu wax ma waxal leen ko xam nga luñ tont ne ko mu dimbali nu waaw noonu lan mel parce que fii lañ ko jële parce que fii lañ ko jële fun dem dañ koy yóbbaale mbokk yi kenn du fa tur deret kenn du fa napp kenn du fa rëbb kenn du fa napp kenn du fa rëbb ci biir jàkka ji ngay taxaw pitax naaw taxaw ci sa kaw bopp bi amoo droit laal ko ngay dox mu nekk sa kaw ci biir kaaba gi ngay toog muus ñëw romb la wala mu ñëw tëdd sa kaw wala mu dox ba ci zamzam yee di naan zamzam comme yow muus laa wax muus waaw parce que kenn amul droit laal ko fa allahu akbar mu ngoog parce que dëkk bala yàlla defal sécurité man daxalahu kaana aminan musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi walih wa sallam eɗen yetta allah kanko mo annduɗa kanko ɓurni nokkuji ɗi e jeyaɓe ɓe kanko allahu subhanahu wa taala kanko ɓurni jamma e nder jammaji o ɓurni leydi nokku e leyɗele ɗe e dow leydi o ɓurni neɗɗo goto e dow yimɓe ɓe hono no ɓurni mouhammadum sallllahu alayhi wa sallam e nder yimɓe ɓe o ɓurni lewlu korka e nder lebbi ɗi o ɓurni jamma leylatul qadre e nder jammaji o ɓurni ñalawma yawmul jumaa e nder ñalawmaji ɗi ko hono noon o ɓurni makka e dow leyɗele ɗe hen saaji en jooɗoto nanen ɗo yimɓe ina mbiya oɗon soɗon kaala makka makka makka tan kaala toon bandiraɓe sen kalani makka holko kalten ndax en pawi gita men nokku ɓurɗo makka seɗen juula holto kuccitten nelaɗo holto jibina alquran holto telli zamzam hoto ummoto holto hajarul aswad woni ɗiɗo fof en tawat ko makkatal mukarrama woni ndiɗon leydi allah haale qur'an o wi oɗon jama woni jama adiɗo fawede e dow leydi ala jama adiɗo fawede e dow leydi ko wona makka hay adama nde o telli o tawi malaykaji ɗi mahi jama o ha gasi nden gorodi ndi suuɗima leydi ndi ubbi ɗum allahu subhanahu wa taala yamirimo yo ar o fewtina o ummi inde kanko adama e joom suudu makko ɓe ngari makkatal mukarrama a joni wiyen oɗon nokku hoto hay goto wat ɗum e ɓerde mum oɗon nokku soɓe juuli hoto juule oɗon nokku soɓe koori hoto koore oɗon nokku haydara ala toon hay neɗɗo so ummima ɗo ina yaaha toon ina rewoya allah so waynima ceerno makko walla kilifa makko o wima aɗani yaaha kono hoto adduɗo haydara hoto ƴettu toon hunde boy boy toon haydara ala toon a toon haydara ala toon haare umminde aljanna nan toon ina wiye hajarul aswad sa memi ɗum bakkatuji ma fof yeehi toon nokku nan toon ina wiye ruknul yamani toon nokku nan toon ina wiye misab toon nokku nan toon ina wiye hijre ismail toon nokku nan toon ina wiye safa e marwa toon ndiyam nan toon ina wiye zamzam ɗi wiye haydara ala toon est ce que sénégal ina woodi zamzam est ce que guinée ina woodi zamzam ndeke ko toon alhaali o woni toon poɗɗe nannuɗen e nder ɓerɗe men yiɗen toon yiɗen wonɓe toon ɓe jiɗon jiɗen gonɗo toon o par ce que ko toon allah waɗimo sallllahu alayhi wa sallam ɗum tagui ñalawma nde o yaltata makka hefere ɓey ne jaltinamo o dari o wi leydi ndi ɓuuri e ley leydi leydi ndi ɗo jiɗmi ɓurmi yidde e leydi wallahi soɓe jaltinano kam mi yaltan mi yaltata ganden dajjal kuɗaɗo allah o o natta makka o natta médine par ce que allah reeni ɗum ganden ko taari kaaba ko ko annabaɓe uba hen temettati annaba nan toon kabru sunuh nan toon kabru salih nan toon kabru soaibu nan toon kabru ismail nan toon kabru nene makko nan toon nden alhaali o ko toon allah waɗi yalnanu yo allah won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk jullit yi am na sunu benn mbokk bu fi indi ay këyit yuy wane ne dafa tawat bëgg ku ko dimbali jigéen la noo ngi ñaan mbokk jullit yi léeg-léeg amaana ñu taxaw fii di sàkkul mbokk jullit yi ndimbal jamono bi moo tëree noonu nit ñi ñoo sonn seen loxo jotul seen ginnaaw te jullit jullit mooy mbokkam al muslim axul muslim kon kenn ku nekk si ñun buñ jullee ba pare lu nu am lu nuy dimbalee mbokk boobu insha allah ñu dajale ko jox ko ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na nu yàlla nangul yal na nu yàlla remplacer yàlla fay nu aljanna firdaws allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Mm-hmm.